ñunu neen la ñunu neen la ñunu neen la ñunu neen la waaw waaw ñu ñaan yàlla waaw waaw mu génne jàngoro bon bi ñunu neen la coronavirus c'est du sérieux les gars corona ce du cinéma c'est du sérieux coronavirus jàngoro la bu wér feebaru coronavirus lu am la muy lu sérieux coronavirus c'est du sérieux coronavirus lu sérieux la lëmba na réew mi coronavirus lu am la te lu existé la te lu leer ba leer mooy mi ngi dund ak ñun coronavirus jaaxal na adduna bi respectons les consignes bëgg ngeen di raxas seeni loxo ak saabu di laal ci gel yi raxas suñuy loxo fu ñu toll dem leen toog ngeen raxas seeni loxo ba mu set loolu moo gën a gaaw a daaneel virus bi jël mesure d'hygiène yi di ko respecter du respecter couvre-feu bi Respectez les consignes et restez chez vous. toog leen seen kër ngeen respecté consignes ah. képp ku mu nekk danga war a toog sa kër. ngalawaay restez chez vous toog leen seen i kër ngir mën a xeex ak coronavirus. solo mun a toog seen kër bu fekkente li ngeen di dox du farata ngeen def ko toog seen kër mais avant toute chose. restez chez vous. avec Equivox TV, votre télévision à portée de main. Restons chez nous avec Equivox TV. De grâce, restons chez nous. Avec Equivox TV, la télévision à portée de main. Restons chez nous avec Equivox. Restez chez vous avec Equivox, la télé à portée de di toog seen kër di seetaan Equivox TV mu leen di sensibiliser saa su ne. ci ci ci coronavirus bi nga xam ne lëmb na ñu ne neen la adduna bi daal ñu ne neen la ñaan yàlla buur bi feebar bu bon bi mu jëlee fee restons chez nous et respectons les consignes avec Equivox TV votre télévision à portée de main